loolu mënuñu ko ñàkk a bañ a def parce que loolu attaque la. ayca jigéen ñi ko moom ñëw leen. may demba booy ne suñu dama ñu noos. tey nag dañoo ñëw fii di fêter journée de la femme. di fêter waale nag suñu victoire. ci président Macky suñu gañe bi ñu gañe. di ñëw fii ci Babacar Sadikh Bèye directeur général du port autonome de Dakar directeur port autonome de Dakar ak madame Bèye Ndeye Ndeye Codé Ndiaye directeur nag nekk na nit koo xam ni vraiment buñ ne ndax nit baax na dañ mbokk yaa ko wax sama rakk la loolu la kon Babacar Khadim Bèye li ko tax a jóge États-Unis ñëw liggéeyal réewam liggéeyal président de la République du Sénégal muy monsieur Macky Sall président Macky Sall nag ñun kontaan ci moom ñun jigéen te damay xam ne président ñun jigéen ñi ñoo ko fal ndax dëkk mu dëkk fa kon dañ koy xamal loo xam ni bu ñu woowee rek dañ koy wuyu ndax buñ nee ndax nit baax na tamit dañ naan la bokk yaa ko wax ñoo ngi gërëm président Macky Sall ko ñaanal deux mille dix neuf bii cinq ans mu ñu war a waat yàlla na ko yàlla oyofal ci boppam yàlla dimbali ko dimbali soxna Marème Faye Sall gouvernement du Sénégal ñu ñaanal Babacar Sadikh Bèye le directeur général du port autonome de Dakar yàlla may ko fan gudd te yàlla may ko avancement Babacar Sadikh Bèye nag yaakaar naan bu Macky amoon ci moom rek doy na gouvernement nekkul bàyyi kenn naanul bàyyi kenn dal na xam na li muy def jabaram ji topp ci ginnaaw dem moo ko ko dàq jabaram nelawatul leewatul ñun ku ne dugg nañ rek am ndam ba yàlla defal ñu ndam ñun foog yàlla rus ñu ndax dañoo sonn ci nabu Macky Sall bi président nag moom mooy le meilleur président de l'Afrique man bëgg naa ko torop bëgg soxnaam bëgg sama rakk bi Babacar Sadikh Bèye bés bii ne dañoo ñëw di def journée de la femme dajetu di nonsaale nag suñu victoire bi ñu am ci président Macky Sall loolu moo ñu fi indi moo ñu fi tax toog di gërëm di sant di gën a góorgóorlu di gën a jàpp nag président Macky Sall di gën a liggéey Macky Sall ñun dinañ gën a liggéey gën a takk suñu suñu fit gën a liggéey soxna Marème Faye Sall ñun dinañ liggéey ba nga ni ba naaw parce que vraiment première dame fay topp nit ci gannaaw jëkkëram comme ni Ndeye Ndiaye topp ci gannaaw jëkkëram man dama koy delloo njukkal di ko félicité maa ngi félicité Marème Faye Sall man Zeyna ba Bey maa ngi félicité Marème Faye Sall di félicité sama rakk di Babacar Sadif Bey maa ngi kontaan ci ñoom lu ñu mënoon ba président gagné élection yi ko def ba benn élection bu fi jàll dinañ ko def bu soobee yàlla takk suñu ndigg ba président gañewaat lu ñu mel wasalaam ah kontaan rek kontaan ndax li dafa neex tey sinon ayee tey jigéen ñi ayee dans le monde entier tey jigéen ñi ayee moo tax li def dañu am fierté ak mbégte ci bés bii bés bi suñu bés la ñuy di ñaanal euh, madame Guèye Ndeye suñu njiit ndax lii yëpp moom la dañ koy ndax lii victoire am la moom lañ koy fekkee fekk boobu seen ngir sax moom lañ ko jaglelee ñun ñëpp a kontaan jëppal Castor Derklé ñun ñëpp a kontaan ak ci jëkkëram Ndeye Guèye ñëpp a kontaan dëgg yàlla